bàyyi ruube waay mais mais en fait euh, ban jàngat nga am ci situation bi Ousmane Sonko génnee na sànq benn texte dèjà du ñàkk texte bi am nga ci information. non gisaguma texte bi mais je pense pas que waxul lu may bett ñëpp xam nañ ne Ousmane Sonko ñemewul débat contradictoire 2014 bi ñu créé Pastef ba léegi. musul def conférence de presse nangu ñu poser ko question saa yuy def interview Pape Alé Niang la ou Walfadjri ses télé ou ses journalistes musul ñemee contradiction à l'assemblée daan wax ba pare daw dem ñibbi donc tapet la mënul wax lu ma bett du dem. buñ ko doon neexal bu buñ ko doon fay buñ ko doon rendi du dem parce que ñemewul débat contradictoire du démocrate. yàkkamti yàkkamti na pour pour pour dem mais euh, mécanisme yëpp ñu ñoo wala pareegul pour mu mën a mais mais déjà projet boo xam ne pareegul donc déclaration de politique générale projet la vision la donc décembre lay pare nee na donc lu pareegul ñu bëgg ko forcer mu dem wax ko c'est c'est compliqué ñemewul du démocrate nanguwul débat contradictoire projet bi pareegul nu muy waxee buñ ko doon rendi sax du dem. faut pas se fatiguer. mais Abdou Mbow dañu dem attaque article yi nga xamante ni mooy permettre euh, président Bassirou Diomaye Faye mu dissoudre assemblée nationale loolu est-ce que dina baax bu ñu defee lool <laughs> no pour la république c'est c'est c'est dommage c'est honteux et voilà mais c'est c'est c'est comme ça avec Sonko toujours comme ça. pourquoi tu utilises le mot Sonko lu tax Sonko parce que Abdou Mbow moo wax. non j'ai dit que ne c'est dommage pour la république parce que cause à effet la comportement bi le premier ministre am moo waral conférence de presse bi am moo waral waa Yewwi génn wax li ñuy wax comme à leurs habitudes def de la manip wax lu dul dëgg et voilà donc deme ñu war a dem def session budgétaire si benn euh, loi boo xamante ne nii règlement intérieur u assemblée boo xam ne ñoom nee nañ false la foo usage foo moo ci nekk ba pare seen ministre war a dem foofu demain contradiction boobu lan la qui peut comprendre voilà voilà. est-ce que waroon nañ fi egg est waroon nañ fi egg hmm? est nañ egg si fii nii euh, ci coow li est-ce que waroon nañ fi donc pour yow kan moo kan moo nekkul ci dëgg. mais Ouzin jàkka kañ bu amee problème ilimaan yi la ñan ñooy njiite réew mi du naay mi du ñi ñi julli si ñiy jiite réew mi donc su fekkee ñoom ñoo doxalul yoon ñoom la seen julli baaxul ñu topp seen ginnaaw julli gi du man a normal. Ousmane Sonko demagul waaye ñu ngi gis député yi taxaw ne ñoom pare nañu pour def ko motion de censure loolu tamit sa nekkul loo xamante ne nii am na tuuti doute quand même. waaw bon xam nga dañ koy introduire buñ koy introduire nag na peut-être le règlement euh, intérieur bi ñu naan baaxul ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk présidence euh, euh, ci assemblée nationale bi ñoom ñooy ñoom ñooy xool rek ak ñi nga xam ne seen xam-xam naa bi léegi léegi maintenant soxna si da ma bëgg a wax ne ñëpp dañu nekk di def actuellement dans ce pays euh, la charrue avant les bœufs mais exactement lool la looloo nekk di xew ci réew mi comment se il un gouvernement commencé ñuy def ñu bëgg a def session budgétaire alors que xamaguñu vision gouvernement boobu fan la jëm le premier ministre lui-même defagul sa déclaration de politique générale waxaguñ ñu projet bi lan la lan mooy tenants yi ak aboutissants yi xamuñu ko et alors que ñu ngi bëgg a def session budgétaire donc tout est mélangé actuellement donc sur ce nag il faut que ñoom ñu xoolaat seen taxawaay xam ne pour l'intérêt de cette république là pour li nga xamante ne nii moom mooy euh, moom mooy euh, euh, avancement ak ñu bañ a perte temps sur des débats yoo xam ne amul benn njariñ mu am taxawaayu njiit am taxawaayu kilifa am taxawaayu li nga xamante ne ni moom mooy euh, nit koo xamante ne dafay yaa dënn ba pare nangu contradiction in faut mu nangu contradiction waaw. mais bu ñu nee ne changé nañ ko depuis 2022 ka ba ñu indiwaatee euh, euh, premier ministre maanaam si règlement intérieur bi nekkatu ci ñoom nee nañu loolu moo waral Ousmane Sonko mënu la dem. waaw léegi yow ci ci règlement intérieur bu bon boobu ñuy wax ne dañ koo changé woon ci règlement intérieur boobu noonu ñoom ci lañ toog nekk député ba mën cee def conférence de presse lu tax boobu ba léegi ñu nangu toog ci pencum ndaw réew mi voté fa ñaata loi ñaata budget introduire fa lu dul jeex depuis depuis ñaata at donc maintenant est-ce que ñoom duñu démissionner kon parce que pour pour pour pour être voilà pour être comment dirais-je pour être juste avec eux-mêmes man de duma bokk ci loo xamante ne nii damaa jàpp ne réglement intérieur bi faux et usage de faux la man ma toog fa di ci fayeeku di ci dund di ci yor 4-4 ñu ma ciy jox carburant du ma ko nangu non non dama du ci dul bokk ba koy signaler comme baaxul du ma ci bokk lu baaxul du ma ci bokk donc ñoom député yeew yi dañoo war a démissionner ñoom ñëpp assemblée parce que comme la la leen tënk baaxul faux et usage la ku ci toog ku bon nga. mënuñu xaar boycott à l'égard des députés de Benno Bokk Yaakaar. bon mais Ouzin est-ce que loolu doo ko laaj député Benno Bokk Yaakaar yi. <laughs> ni ñu taxawee nii bon bu amee mën na bañ a bette aussi. Ouzin yaa ngi woon ci conférence de ngi fi woon dégg nga li ñu wax man dégg naa ko léegi nag boo ma bëggee poser question ñoom ci seen i décision ana Abdou Mbow laaj ko mais euh, ñu ngi lay. maa ngi leen di delloo ziar bu baax. waaw euh, je m'appelle Amadou Moustapha Gaye voilà je suis de Benno Bokk Yaakaar voilà. en fait voilà. Abdou Mbow déclaration bu. on est très satisfait. Euh, je parle au, pour l'ensemble des militants de Benno Bokk Yaakaar nous sommes très satisfaits. nous commencions à nous inquiéter par rapport à au, ce qu'on qu aurait pu appeler un certain, un, euh, un certain, laxisme de la part de, de Benno Bokoyakar. Mais aujourd'hui, la réponse politique à l'équation politique que, ben, euh, askan que Yewi Askan a posée à Benno Bokoyakar a été apportée par le groupe parlementaire de Benno Bokoyakar. Je pense que la seconde étape demain, logiquement, c'est de boycotter systématiquement le passage de tout ministre tant que le premier ministre ne, ne va pas déférer pour faire son, son discours de politique générale. Parce que ce serait mettre la charrue avant les bœufs. Vous, en, convenez avec moi que il faudrait nécessairement que euh, l'Assemblée nationale donne un cutus au Premier ministre, accepte le Premier ministre, pour que, le, pour que ces ministres puissent passer et présenter des, quoi que ce soit. Donc tant que Ousmane Sonko ne sera pas devant les députés pour faire son, sa présentation de discours de politique générale, il est absolument qu'aucun de ces ministres ne va être écouté par le, la majorité. Aujourd'hui, s'ils veulent un, un pays dans, un, dans une situation de non-gouvernabilité, mais allons-y, on va y aller avec eux. Oui, euh, une voyoucratie, il faut opposer, il faut être voyou avec, des, euh, avec une voyoucratie, il faut lui opposer une voyoucratie. C'est aujourd'hui ce qu'on a, qu constaté. Ces gens-là en face, ils, ils, comprennent un langage, le langage de la violence et de, du gatsa gatsa. Il faut leur opposer ça. Ousmane Sonko, il est coutumier des faits. Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui n'assume pas ses responsabilités. On l'a vu avec les procès, les différents procès qui se sont passés dans ce pays. Il s'est débiné. Il s'est débiné. Tout le monde l'a constaté. Avec Adissar, la, la, question de, de Sud Beauté, il s'est débiné. Avec, euh, euh, comment dirais-je, euh, le, le, le, problème de Mambayan, il s'est débiné. Il a refusé, de, il n'a pas daigné répondre à a convocation du tribunal. mën nga ñëwaat ci un olof pour mu gën a leer. bëgg wax rek mooy tey ñun kontaan nañu. waa Benno Bokk Yaakaar ak réewu Sénégal képp kuy démocrate ci dëkk bi sa xol sedd na ci réaction bi nga xam ne tey groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar am na ko. parce que jàpp nañ ni vraiment trop c'est trop lu nga xam ne mësul am ci Sénégal ñu bëgg ko fi amal. benn nit koo xam ni dañu la def premier ministre nga taxaw ni yow lank carré ni yow doo taxaw def discours de politique générale devant la majorité bu nga xam ne moo fi nekk parce que jàpp nga ni c'est une majorité boo xam ni da nga ko mépriser majorité la bu nga xam ni reconnaître loo ko loolu yëpp sénégalais yi mënul weesu loolu ñii ñooy suñu ay ndaw ci assemblée nationale aujourd'hui s'il faut aller vers une crise dans ce pays d'institution dans sa pays nous appelons le président de l'assemblée pour qu'il assume ses responsabilités face à ces gens parce que ces gens-là yu nga xam ne ay nit lañ ñu nga xam ne li ñu comprendre mooy kuy jaay woyu da nga koy wan ne que woyu banday baayam mu jeex. doon wax ne moom la Ousmane Sonko ragal ba tax nanguwul dem assemblée est-ce que du loolu moo am parce que bu ñu déggee député bi ne ñu ngi exiger mu ñëw te bu ñëwee motion de censure dina am est-ce que waruñu woon a xaar par rapport ak li nga xam ne Sonko dina leen ko proposer si loolu ñu xam ndax dinañ dem loolu Ousmane Sonko c'est quelqu'un qui ne peut pas soutenir un débat contradictoire nit la koo xam ni mënul taxaw nit di wax muy wax nit di wax muy tontu ak nit di wax muy tontu parce que wóoluwul boppam c'est c'est sa nature dafa wóoluwul boppam on l'a jamais vu personne ne l'a jamais vu dans le cadre d'un débat contradictoire le rare les rares débats contradictoires yu ñu ko gis gis nañ ko fii ak Kémi Séba il l'a broyé il l'a ridiculisé barki démb mi ngi daw ci réseaux sociaux yi nit ñi gis nañ ko il ne peut pas soutenir un débat contradictoire et aujourd'hui il a peur de faire face à ces gens-là yu nga xam ni démb ak bërki démb il les a traités de tous les noms d'oiseaux aujourd'hui c'est son tour chacun aura son tour euh, chez le coiffeur il faut qu'il prenne ses responsabilités na takk fitam ñëw kenn du ko lekk kenn du ko rey mu ñëw taxaw janoog sénégalais yi wax li mu bëgg aujourd'hui il est clair que projet bi muy wax moo amul parce que bala ngay wax discours de politique générale day am matière dangay am loolu mën a ñëw wax proposer Sénégalais yi ni leen su ma jotee moom moo waroon yàkkamti sax discours de politique générale bu fekkee dafa bëgg a liggéeyal Sénégal moo ko waroon yàkkamti ah bu moo waroon a ñëw moom ci boppam woote ni nañu gaaw def loolu ma wan Sénégalais yi ni ñun li ñu amee lu dëgër la lu nga xam ne buñ ci toppee Sénégalais yëpp parce que man yal naa juum yal na moom mu am dëggam ñun ñu juum parce que ñun dañu bëgg suñu réew. mais su fekkee ne amul il n'a rien à proposer on peut la femme la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle bu ñu bu ñu dégloo Abdou dañuy dem attaque euh, article yi nga xamante ne mooy permettre président Bassirou Diomaye Faye mu dissoudre assemblée nationale. je on est en phase nous sommes en phase par rapport à cette décision d'attaquer le fait que le président de la République ñu fexe ba mu dootul mën a daaneel assemblée nationale chaque entité institutionnelle di assumer rôle am parce que ñoom la ñu doon wootee ñun it loolu la ñu d'accord nañ ci. que chaque entité institutionnelle assume ses responsabilités assume son autonomie loolu mooy dëgg voilà. voilà merci beaucoup. voilà alors euh, en résumé euh, li nga xamante ni mën ngeen ko jàpp ci li nga xamante moom mooy discours euh, Benno Bokk Yaakaar bi ki nga xamante ni mooy Abdou Ndaw moo ko daal di jiite mais en tout cas point bi si gën a essentiel te nit yi forcément danañ ci débat fii ba si kanam kanam mooy dañuy ne dañuy dem attaqué nga xamante ni moom mooy article yi tax président Bassirou Diomaye Faye dissoudre président dissoudre li nga xamante ni moom mooy assemblée nationale donc notion de censure bi ñu doon débat finalement jàpp nañu fa lañ jëm bras de baa du am suba parce que Cheikh Diba ministre bi nga xamante ni moo gàlloo wàllu finance wàllu budget suba dafa war a dem ensemble assemblée nationale député APR yi ndax duñu ko boycotté en tout cas de toute façon y a de quoi s'inquiéter lu si mënti am dinañ ko daal di topp ndax Ousmane Sonko il a fait exprès ou pas dafa génnee benn communiqué di tontu Bassirou di tontu Guy Marius Sagna mais tontuwaale na ci ay leeral loolu dina ci ñëw seen xam-xam dafa ci ci wàll yi mu nekkoon Mouhamed mu nekkoon Ousin ci présentation bi